yal na yàlla guddal fan yi te barkeel ko suñu yëngoo suñu dal yal na lépp di yàllay kese subhaanahu wa yàlla bu ñu dal ci fitna yàlla bu fitna dal suñu kaw lu ñu sumb yal na sotti lu ñu jéem yal na antu lu ñu tàmbali yal na yegg yàlla bu kenn am ci ñun cër bu dul yàlla subhaanahu wa taala déwénati leen déwénati leen déwénati leen fekk ay déwén takkoo takku